Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. C'est un immense plaisir même. It is a great pleasure to serve you and thank you for being faithful of our programs. yéen ñu ñuy safoo di ñu tiitaroo di tiitaroo la TMS TV c'est un immense plaisir même suñu toogee fii di jano ak suñu ay ah internautes vraiment di di di di xam ni yéen a ngi chatter yéen a ngi nekk di liker yéen a ngi nekk di commenter vraiment di abonner te lay doon ci ñun vraiment avant de commencer je vous suggère d'aller sur YouTube pour abonner et activer la cloche de notification pour jot suñu ay information mbégteeg bànneex la ñuy am chaque fois bu ñuy dee door fii ah vraiment di ci ànd ak suma naataango suma collègue suma xarit Anta Wade Anta Wade nuyu naa la. jaaj yi maa ngi lay fay maa ngi nuyu mbokku internautes soppe yi ak téléspectateurs yi taamu bëgg safo la TMS TV di jiital nuyoo bi notre PDG Alaaji Thierno Moulay Sow avec toute sa famille bi nga xamante ni ñoo ngi ca Dubaï dekk ci vacances ñu leen di nuyu bu baax jaaji on salue de passage au grand marabout le khalife général des djinns El Hadj Thierno Moulay Sow le golden boy de la médecine traditionnelle depuis Dubaï ñu ngi koy nuyu bu baax a baax on les fait un coucou moom ak euh, njaboot gi yëpp vraiment madame Sow la reine soxna Umu ak Ajaratu Mariama ñu leen di nuyu bu baax a baax incha allahu rabbi bon Anta bon on a constaté comme chaque fois mm-hmm. lu xew ci réew mi bari na mm, et TMS TV day may opportunité internet di di waxtaane ci point yu bëree bëri mm-hmm. bon actuellement Anta on a constaté que le mariage est en train de se dévaloriser parce que bu njëkk dañu daan gis suñu ay waajur yi bon mariage yomboon na ci ñoom peut-être pas dañ leen ko daan sarax non mais bu njëkk dot bi yomboon na trop parce que dañ daan topp diine de trop mais actuellement léegi dañoo gis le dot du mariage est devenu une concurrence ban impact lay am lan moo ko sooke Anta mhm. concurrence bi am ci dot yi nekk ci mariage bi lan moo ko waral Euh, concurrence bi nekk ci dot yi dañuy gis ne wujje la mhm. ndax ki nga xamante ni takk nañ ko ci sa koñ ñu may ko deux millions yow bu ñu lay takk yow tamit dangaa bëgg euh, nga am lu ëpp loolu mhm. nga bëgg xew bëgg defante bëgg a sañse bëgg a jaayu mhm. boo tey euh, mu indi ay conséquences yu négatives yoo xam te dinañ ci xuus ci kanam loolu noonu nag du du du du aada yaa ngi dégg dañu dem ba dañu dañu dañu jéggaani yeneen yoo xamante ni nekkul suñu cosaan l'Occident tamit boo gisee mm-hmm. Sénégal nga xamante ni bëggante boo ñu gisee ki nga daan laba bëgg labat ko deux semaine ñëw waajur bi da ngay waxtaan ak ñu may la ko dala yóbbul sa sa jëndal guro jëndal guuxa mm-hmm. nga yóbbu ko laajuñu la dara lekk lenn rek lañ lay laaj mooy nga yor ko ndax nee naa la ji may ku njëkk may ku dëkk ko gën léegi nag bi ñu demee nag. ah Anta wax na. Mhm. waxati na de. ah may bu njëkk kay mooy bu dëkk moo ko gën. Mhm. le fait nga may nit ki ay million te boo demee doo ko dëkkal ndax jigéen da nga koy dëkkal dëkkoo ko. Mhm. yaa ngi dégg yor ko. loolu nag bu ñu demee nag ba ñun ñu def ko benn mode def ko tendance ak TikTok bi. ak statut bi ak WhatsApp bi yooyu. ku ci nekk yaa ngi bëgg ñu may la lu bëri ba nga statut ko nee na nee nga nag da ngay da ngay tàngal say xolu noonu. bu ko defee woykat yi taxaw si ginnaaw naan la bis bi la tey sa noon du nelaw mhm. bu nelawee sax dañ koy yeemu jug yaa ngi dégg mhm. ku ci nekk nag bëgg defante ak say noon ndax noonu xam nga des fois koy créer yow euh, boo jàppee ne kenn du noonu sa sa noonu bëgg nga ñëpp ñeene nga ñëpp jàmm ku la bañit ça ça va quoi mhm. mais léegi nag concurrence boobu noonu am ci ak defante bi am ci réseau sociaux yi ak utante ay noon ak yooyu tax na ku ci nekk yaa ngi xool plus lu ñu may kii yaa ngi yootu lu ko raw pour yow bu sa xew ñëwee wala bu ñu taxawee nga ne euh, duma sa morom kooku dépassé naa ko jaaji bon vous avez entendu les propos waa Wade mais bon ce que je conçois moom mooy <coughs> ñun dañoo tardé mm-hmm. parce que à vrai bu ñu dee tiitaroo million ci mariage mm-hmm. or que damay dégg mag ñi di naan mariage bi nga xamante ni mm-hmm. moom moo am can gi can gi normal nga joxe guro ñu takk ko mooy gën a durer parce que actuellement dañu lay may des millions on toofu des véhicules est-ce dégg des parures en or des maisons mais seen sëy du durer. ci loolu sax kilifa bu mag dafa daan wax ne buy booy mayee sa doom bul ñaan can bu bul ko ñaan euh, lu bëri dot bu bëri. Mhm. ñu ne ko lu tax bul mayee ko dot bu bëri mu ne ko parce que gu góor gi tàng na xol boo xamante ne bés bu ngeen xuloowee dina la la ñetti million laa la may yaa ngi dégg. Mhm. ku góor jigéen te teg ci mu ne tamit jigéen mu téye boppam réglé ndax tey jii ëllëg mun nañu xuloo mu ne ko yow mi nga xam ne ma lay takk da doon taxawaalu mhm. loolu mu am nekk deux point yu am importance mooy que ni nit ki kenn mayoo ko ko jabar kenn du ko jaay mhm. da nga ko koy may mhm. mais li ñu gis nii jaay la ndax ki jël sa sa sa doom laaj ko ne ko 3 millions nga ñëw joxe 3 millions ñu soog laa jox soxna si kooku jaay nga koy def maye nag mooy nga teg lépp ci sa ci farata waaw ndax yonent bi bu daan maye soxna dañ dafa daan xool li njëkk mooy am na diine mhm. ndax ki am diine dina am yërmande mhm. ki am diine du dóor ku am diine du dina am jom nangoo daan doole dina li mu am bokk kook yow jaay bi mhm. teg si di la bégal vraiment eh, bon ñuy waxaat tamit suñu wéjur yi parce que bu ñu topp affluence bu jeunes yi am ci mariage léegi parce que sa doom boo ko gëm la wéeni boo ko gëm la wéeni jar nga ay millions loolu lay xaar dëgg la sax man particulièrement yéen naa lu ne jigéen mhm. jigéen moom loo ko may moom ah loo ko may yelloo na ko mais tamit aussi dañuy waxante dëgg euh, mariage ci boppam du jaay parce que dañoo gis actuellement aussi parent yi tamit dañuy am benn influence ci seen doom di leen pousser pour ñu am ay millions ah parent yi xam nga lu tax ah, loolu fan nga koy gën a xamee boo ñëwee ci kër di ñaan soxna dañ lay laaj lan lay liggéey. Mm-hmm. est-ce que laajuñu la ba xam jullit la ba xam mu ngi jaamu. yàlla est-ce mu ngi di mu ngi julli est-ce que mu ngi julli yàlla est-ce que li nga xamante ne nii mooy yërmande am na ko déedéet lu muy liggéey la ñuy laajte. Mm-hmm. tey bu indee gaaree oto bu rafet. sañse lu baax. wuyu ma waa moom bu muy liggéey. Mhm. ban xeet la toog. la bokk waaye yaayam bu muy liggéey. parce que ñu ngi xaar ay defante yaay ak jokkalanteeg. réew mi li fi xew amul fenn. waa di takk jabar naan waaw di di ut soxna euh, ñu lay takk sa doom nga ne xoolal ku la mën a yor. Mhm. Mhm. ndax olof dane ku nga xamant gémmiñ bu yàlla xar nañ ci def dinañ ci def dara waaye nga jàpp ne euh, kii ba xam mën na la mën na la yor mhm. parce que am am du dara mun ngay takk nit ki am lu dul jeex nga mhm. takk ko deux ans sa sa dara doxatul amatoo est-ce que bu boobaa sëy ba danga koy dakkal du dem léegi nag loolu moo waral ne sëy wuñ ko tegee ci bakkan nañ ko teg ci ruu nañ ci dugg te yàlla rek tax ndax loo dugg te yàlla rek tax su commencement ba neexee fin ba tamit day gën a neex waaye loo dugg nag ci am-am ndax ki nga bëgg ndax taar jaaji mhm. bu demee ba feebar taar ga day dem. vraiment bu demee ba ba bu demee ba forme bi mu demee ba am ay doom am ay soucis yu ëpp ko forme bi koy réer mhm. bu ko defee yow dootoo ko gis da nga koy bàyyi mhm. loolu moo tax ne dañu delluwaat ci yàlla yàlla boo ko gëmee bàyyil ko sa bopp lépp looy dugg ak looy def xool ci suñu borom je pense que doo concurrence ci ay dot doo concurrence dara da ngay concurrence ci jigéen jëkkër ju baax. jëkkër ju baax ju la mën a yor ju la yërëm. Mhm. yaa ngi dégg lu mu am bokk kook yow du la fen yaa ngi dégg te góor ñi léegi dañuy wër di fen rek ndax lan pour convaincre jigéen koo bëgg di nga ko fen. imagineel ngay takk jabar ne ko waaw bu ma lay takk mooy ñëw dinaa la may 4-4 bii bii nii boo sëy see dinaa la defaral lii defaral lii te yoroon ñaari salaamaaleykum mu sëy 3 mois gis li nga doon wax yépp amul waaye sëy ba dina continuer jaaji noonu moo tax gis nga fen du du bijaaw yaa ngi dégg et le juge nañu jël lépp def ko naturel nañu jël lépp def ci mbëggeel ñu jiital mbëggeel teg ñu jiital suñu borom yàlla foo ko jiitalee loo songu daan ko loo yootu jot ko waaye boo jiitalee am am jiital affaire àdduna gis nga jàkk jëkkër jabar dafay dimbali jëkkër ci jamono te bañ koo te bañ dañ koy dafa koy dimbali ci jamono te bañ koo jiital ci jamono xam nga fi li vraiment da koy dimbali ci jamono te bañ koo jiital ci jamono et bon euh, le mensonge actuellement est cette source ah de nombreux problèmes sociaux actuellement gis nga Anta. Mm-hmm. Mm, gentleman du mm-hmm. nga xamante ni day wax lu nekkul ci moom. man yàlla dimbali na ma. mun naa la may deux cent mille ñu nekk di génn et je te dis man de bëgg naa la waaye de lii laa am te bëgg naa la jël soxna bëggatumaa fo mais am naa diine am naa jom pare naa pour bokk ak yow lépp ci sama àdduna waaw wërsëg yàllaa dégg mm-hmm. koo koy gentleman mm-hmm. mais keneen mooy jóge fee waa mais xoolal bu ma lay takk danaa la teral su ma lay takk danaa nanga saayam te yàlla xam ne ne bu xëyee du joxe dépense seen kër yaayam bu ko laajee yokk du ko jox loolu du gentleman aussi boobu boobu tamit parenthèse mu ngi ci nañu bàyyi di wax loo xamante ni nekkul ci ñun parce que jigéen boo ko bëggee doo ko fen la fen moo yàq réew mi mhm. te aussi gis nañu euh, dot bi aussi tourné na ba ci réseau sociaux yi am na ci benn benn influence bu mag aussi mhm. là tu peux mm, bi ak li nga xamante Instagram surtout Snapchat ak star yi tamit. Mhm. li nga xamante ne nii siiw nañu. yaa ngi dégg tey ku ku ci ne yaa ngi concurrencé liñ la may. Mhm. ku ci nekk yaa ngi man dama am benn constat bu ma def bu ma neex ci Astou Dione. Mhm. muy journaliste bi nekk 2STV elle est tellement effacée. la nouvelle mariée waaw kay Serigne Cheikh bon ah, mariage est dégg nga ba tey ñu ne la lii lañ ko may. déggoo ko mm-hmm. c'est ça loolu la gis nga fii si tu veux vivre heureux yaa ngi dégg wala heureuse il faut que nga effacé wu doo wane li ngay kii parce que boo demee ba ba ba yow sa dot bi yaa ngi koy publier fépp ku mm-hmm. nekk di la coow waaye yow cat yëpp mun nañ koo faj sax ba mu des ki catu boppam mm-hmm. catu bopp sa bopp nag weesuwul nga weer sa bopp ci réseaux sociaux yi luñ la lu la sa jëkkër defar Ah, ak dot bu mu la may nga partagé ko parce que ki la may ay millions ngay dégg ay boo muusoon est ce que doo ko dugal sa compte banque parce que kenn xamul suba ah suba sa jëkkër bu nekkee si ay tolof tolof nga jàppale ko ndax jëkk nee naa la jëkkër eh, jabar dafay dimbali jëkkër ci jamono hmm. te bañ koo jiital ci jamono lu jamono bi di di laaj rek ne waaw lii moo xew nga ne waaw waaw lii dama keroog yaa ngi fàttaliku décès bi fi mujjee am hmm. ah, ki demoon assassiné nit ki ndax la bëgg a teral jabaram te nee na hmm. bi muy takk jabaram 3 millions yi mu ko takkee da koo sàcc mais coono boobu pour lan la. et vraiment def dara ba pare am ci dumay yàlla moom dara jaru ko ci àdduna àdduna tamit dañ lay yey euh, àdduna jarul dara mhm. parce que tey boo xëyee ree <laughs> am na ku xëy jooy mhm. tey da ngay xëy ne ci jàmm bu subaa nga ne di jooy mhm. da ngay romb sax ci tàgg bi gis benn nit tëdd ñu teg ko ci jaag di ko yóbbu mënalul boppam dara kon àdduna jarul dara aussi dañoo gis concurrence bi am ci dot yi surtout les artistes la ni ñuy def ci réseau sociaux yi est-ce que loolu noonu baax na pour xale yu juddu parce que gis nañu d'après certains gars dañ naan léegi mariage moom lu muy gën a dem di millions yi di gën a yokk parce que léegi bu buñ ngay takk sax millions ngay xaar mm-hmm. est-ce que xale yuy juddu tamit cette nouvelle génération est-ce que du leen porter atteinte aussi loolu xam nga ni tamit nag tam dafa am ay conséquences yu bëri yoo mhm. xam ne daf koy am ci xale yi parce que xale xale rek la li mu gis rek yaa ngi dégg loolu lay copier mhm. te étant ay adolescent et j'ai toujours l'habitude de dire que l'adolescence ça rime à ça rime à la naïveté mhm. quand tu es adolescent tu ou adolescente tu es naïve mhm. donc li nga gis rek moom ngay jàpp na loolu moo am des fois théâtre yi sax vu de luxe yi ciy gis ñoom imitation bu metti ngay jur aussi waaw elle pense que ni loolu mooy réalité et c'est fou c'est pas la réalité waaw nañu delloo li ñu delloo ci suñu maam yi niñ daan def nañu dellu ci suñu boroom yaa ngi dégg ñu xam ne xale yi ñun euh, ku ci nekk rek am nga tey ñoo xamante ne say référence lañu mhm. te nit ki nag bu ñu lay toppandoo war ngaa def lu baax te gis nga nit ñi bu ñu bëgg kenn ndax xew-xew ndax lu xew rek dafay xew yi dañuy ñu jox def lépp te yàlla rek tax xale yi nag ñu daal di leen di montrer le bon chemin à suivre mais bu ñu defee nii ñi nga xamante ne ñoo war a yar ëllëg tey mhm. ñu wane comportement bu bu mel nii waaye waaye déwén kon ëllëg xale yi nan lañu war a mel vraiment suñu doom yi ak suñu sët yi nan lañu war a mel mhm. nañu xoolaat suñu bopp ñëpp ñu daal di def benn taxaw seetlu xam ne kat yàlla bu la yónnee indi la ci jamono da nga xam war a xam ne yow sarge la mission bu mag la. ba mm-hmm. ëllëg tey boo taxawee. ci kanam sa borom doo ruus. doo rus ñàkk rus tamit nag loolu mooy indi que ni xale yi nga xam ne ñoo ngi sa ginnaaw di la xool nga wan leen le bon exemple à suivre ndax kat ndaw euh, temps la rek loo gis temps la mm-hmm. kon te loo am na loo boo ci weesoo weesu nga sa doo ci delluwaat ginnaaw une question kon nag boo si nekkee nga matale ko une question mm-hmm. pourquoi mariage yu ñuy maye des lu yàgg le cas de certaines filles ñu ngi fi. Mhm. dañu leen di maye janvier balaa janvier ñëwaat janvier février mars avril mais tas nañu. loolu laa la wax sànq may bu njëkk. mais xale yu jigéen ñi ñoo ko tey. ah bon loolu wala. xam nga mënuñu ci ah parce que ñaaw na ba noppi nag. seen vie mu ngi ñaaw de. seen vie conjugale li ñuy dund ci biir eh, ci biir ci biir seen néegu sëy ñoo ko xam mais xam naa ni daal. est du ay dóor. ah bon xamuma mais li ma xam daal mu leer mu leer ma. mooy que ni cat dafa am te nit bu catoo boppam nag mhm. am du yàgg yaa ngi dégg mhm. ki ki ngay sëyal bul sëy ak moom ndax alal bi parce que nit mun na la may 3 millions may la 4 millions nga ñëw ba ci biir doo xool sax comportement am doo xool jikko ma xamaloo ko dara nga dugg ci néegu sëy ba mu lay torturer. Mhm. di la def loolu lu la ne la. nga la esclave. waaw nga di la sous-estimer parce qu'il t'a offert des millions. te loo ko wax mu ne mhm. la nangam laa la may waaw mhm. dama laa may na ñaata million waaye ki nga xamante ni dafa ñëw jaaji ànd ak yow tey waaw jaar ji nga mhm. ñëw di takk jabar ànd euh, ñëw wan ko euh, dëgg wan ko am wan ko ni lii laa am diine fu ko nii laa am xale bi bëgg la ci loolu kase yaa ngi dégg ngeen nekk ngeen di du juk ak di daanu yow tey bu bu amee million soo xoolee démb ngay xool ba dinga ko rusa def yenn yi moom tamit su la xoolee mbëggeel ga lay xool ba sa loo ko def mu nangu ko sëy boobu day yàgg vraiment day yàgg day barkeel sëy boobu dafay gudd fan waaye sëy bi nga mhm. xamante dañ kaa teg ci rek noflaay ak ci bakkan nag lu neex waaye bul dugg foofu fattag ma foofu ma ñëw vraiment dina yàgg dina neex te tamit dina yàgg dina ko barkeel aussi nañuy xoolaat aussi mhm. ah way jur yi mhm. nañuy gën a amaat taxaw seetu tamit ci ñoom vraiment parce que sa doom loo koy waxal rek ak foo ko jëmal rek foofu ngay jëmmukaayoo et eh, vraiment Maodo dafa daan wax ni ma Maodo eh, Maam El Hadji Malick mhm. mu ne jëkkër ak jabar mun nañ di jaxasoo ña mun nañ dëkk ñaari at yaa ngi dégg ñu sekk duñu sekk sax tëraayu bànneex waaye à chaque fois waaw le fait que ci ku nekk yaa ngi defar sa jikko moroom loolu rek li ci li ci li ci li ciy bénéfice kenn xamul lu doon mm-hmm. ndax le fait que ngay takk jabar naa xool ko forme ba mën a mu mel ak am ca doom mu ne yooyu yëpp yooyu yëpp du objectif bi yaa ngi dégg mm-hmm. objectif bi mooy nga ànd ak nit ki te yàlla rek tax nga ah, def Maodo moom ah vraiment ko te ah? yàlla rek tax c'est-à-dire loolu dafay dafay dafay ñaax nit ñi rek ne sëy du am am mm-hmm. du taar du dara waaye di ngeen ciy dem yàlla rek tax ngeen di mottalante loolu la fay jàngale lu mel noonu. vraiment des éminents professeurs aussi euh, ñuy nuyuwaat kilifa diine yëpp. <coughs> vraiment ak kilifa aada yëpp. ah vraiment waaye tey Maodo loolu mu wax deux ans Anta. deux ans non Anta fatal foofu ñu ñëw temps bi dañoo xoj. vraiment aussi ñuy amaat mbégte ak bànneex di toog fii. vraiment may sekk plateau bi ak suma collègue vraiment lu neex du doy te vraiment bu ñu toogee di wax seen naturel. ah li ñuy wax maak moom seen naturel parce que ça vient du cœur aussi mm-hmm. j'aimerais que Oustaz mu newoon fi ma mm-hmm. laaj ko benn affaire ci diine mais bon comme qu'il n'est pas là bon dañuy bàyyi ba mu ñëwaat incha allah Anta dañuy bàyyi nga tàggatoo waaw dañuy tàggatoo te teg ci nag xam nga man lan moo ma gën a metti ci Sénégal mm-hmm. tamit ah à chaque fois bu ñu gisee nit ki bu toogee ba vingt cinq ans toog am vingt cinq ans amu bu jëkkër wala dara ñu naan la waa looy xaar pour sëyi looy xaar non def naa ko loolu génnewu nga ci de moom dafa war a sëyi génnewu ko ci de loolu xam nga des fois bu doon nit mooy may boppam du jeexal dara mhm. waaye loo gis rek dafa am àpp àdduna darul dara jarul yàkkamti il faut qu'on qu'on de la patience mhm. gis nga patience lu mu la mayul rek du la ko xañ àdduna dara jarul yàkkamti waaye xeebaate aussi baaxul kuy sëy ak nit ki bul ko xeeb mhm. bul nekk fii di tànn kii dafa am wala kii amul kii mënul déedéet mhm. loolu loolu xaar ay millions ak ay véhicules yooyu yëpp amul solo xoolal ku baax ku am diine ku la bëgg ku la yëram ngeen nekk rek te yàlla tax ngeen jur ci doom ju mhm. barkeel li nga xamante nii loolu rek laay lancé képp kuy ji képp jigéen ndax xam ne may gu njëkk ma waxaat ko waxaat ko may bu njëkk may gu dëkk moo ko gën jaaj may bu njëkk may bu dëkk ko gën vraiment il faut sa contenter de ce que l'on mhm. il faut être fier de ce que mhm. vraiment parce que tamit àdduna ni ñu waxante dëkk ku nekk ak la yàlla naqal la yàlla tracel bu yàlla defee ni yow mm, âge ngay am jëkkër wala gis nga àdduna mhm. da ngay fier fierté dañ koy wax mais xamuñu ko gis nga boo amee fierté ci sa bopp lu bari du la sonal Et je fais un coucou et je lui souhaite happy birthday à ma dulcinée Diara Queen du 11, euh, bon, j'espère septembre, 11 septembre. Ma dulcinée chérie Diara, xale bu baax aussi vraiment. Mhm. fonk ma respecté ma sincèrement et je te souhaite happy birthday longue vie toi et on dit gis nga nit bu baaxe da nga koy wax dama seetaan benn vidéo keroog. am benn waay muy wax dara ci Alaaji Thierno Moule Sow man bon je ne suis pas ces vidéos souvent mais dañ koy ñaanal jàmm di ko gën a ñaanal mhm. yàlla def lépp loo xamante ni bëgg na ko liggéey rek ci boromam mhm. yàlla suturaal ko mais vidéo boobu touché na ma trop ñu ngi koy nuyuwaat bu baax a baax di nuyuwaat internetu TMS TV yëpp di leen wax ngeen abonné di leen jox dig daje ba beneen caaw